dama gis kilifa bu baax nit ku weex bind na téere yu dul jeex téere yi yi ci ëpp jox na ma leen ma indi leen ma bëgg ko laaj benn baat te dañu ma wax ni ñoom xeet wu bari yëg lañu boo leen laajee lu leen soke mën na leen sax feebar la waaye ma jàpp ci yàlla laaj ko fekk daf ma daan wax ne tariqa yi la ngeen nekk yépp jaarul yoon ku gëma di tariqa la woon naan ma ay israiliyaat rek la boobu mi ngi ci diggu révolution نكو دما لا دون لاج لوتاخ يالا نانغو المسجد الاقصى تي سين لوخو مونيما ما واخ لا تي لولا كين دول واخ ما كو لولا تي mu ni ma dañu demoon ba yemale ko barab yépp lu ñu daan def ci barab ci lu ñaaw mujj nañu di ko def ci almasjid al aqsa ma ni ko waaw kay ndax it am na loo xam ni bu ko yàlla seetaane ba mu jeex nag dafa am lu xew ba bi ko yàlla dimbalee mu ni dafa bëgg jël wérd te mu def ko ci façon bu symbolique moom de réew mi daar yëpp a bokk joxante nañu loxo délégation Serigne Moursada ñëw na Mamor Mbàkke ko indi délégation Serigne Cene ba ñëw na Serigne Dame Seck son fils moo ko indi yàlla dogal mu def ko ci façon bu symbolique mooy dañu nekk ci oto bi di xuloo mu gaare ñu jëm ci immeuble bi ba jub ascenseur bi bi ñu duggee ci immeuble bi ñu jub ascenseur bi mu taxaw ma ne ko doo ñëw ñu dem mu ni déedéet ma ne ko lu tax mu ni ma dama bëgg jël wér ma ne ko tàllalal sa loxo yaa ni woon israiliyaat la pour wax la ni mag ñi naxuñu nu mag ñi naxu ñunu maa ngi ko waxtaan ak benn chef politique formation de gauche la am na sama wëllëre bu ma daan weranteel ci wàllu politique ñu di ko wax abdoulaye fofana dama ko daan wax ni defe naa ni idéologie bi ci tane pour un sénégalais c'est d'être sénégalais ma ne ko amul beneen ma ne ko yi ci des yëpp complexe rek lay si Sidi Hadj Malick boo ko masaan aj màkk daf la naan bu fa roy dara loolu mooy bien que ñun sore nañu te yonent bi nag lañu àndal li war yépp def nañ ko fii nu ne ba soxlawuñu di jëli feneen leneen gis nga loolu jar na lu nekk boo ko masaan tàggu yoonu makk mu ni la bu faray dara parce benn tante bu dem makk ba dellusi si ñëw rekk dof complet ba waa makk nuyu na la waa Médine nuyu na la waa Rafat nuyu na la waa Samsam nuyu na nangam nag ma nu ko teeyal ni ko teeyal xamal ni ko yëf yi du noonu waaw